bëre septième combat du soir non loolu yoon sama caméraman nee na du yoon sama caméraman nee na du mais mais mais nag mais nag il faut mu def nànk de Bissawo il faut mu booy Bissawo jël nañ la daan nañ la daan nañ la booy Bissau jël nañ la daan nañ la daan nañ la daan na